éclairer la lanterne des Sénégalais euh, sur les morts il y a eu plus de quinze morts euh, ñu ne ñenn ñi du les FDS le ministre de l'Intérieur parle d'intrusion mais c'est une nébuleuse on n'a pas d'éléments euh, pour mën a lire euh, ces ces ces ces actualités là tout ce qu'on a euh, ce sont des reportages euh, de télévision extérieure qui chargent l'État qui accusent l'État d'avoir eu recours à des nervis l'état dans un premier temps dafa weddi deuxièmement état ñëw ne ce sont des policiers en civil après état dellu si waat ne euh, ce sont des forces yu ñëw di appuyer les les FDS nan nan nga ñuy aider ñu lire tout ça et qu'est-ce qu'on doit retenir manifestation yi lan mooy profilu sociologique u manifestant yi dafa laaj ay enquêtes à approfondir étrangers yi participer ci manifestation yi ñaata la ñu bëri na. on veut être édifié. très bien dañu def enquête parce que man yoruma ko damay gis rek fiches yi may envoyé damay gis ay étrangers yu bëri bëri bëri am na sax ñoo xamante ne. ah bon yu bëri ay étrangers yu bëri bëri. Guinéens yi ñu renvoyé. voilà ci la ñu bokk. ci la bokk. yu bëri. non dañoo man manif dañoo dañoo participer à une manifestation interdite mais euh, ñu ay infraction yoo xam ne dafa nécessiter l'ouverture d'une information judiciaire. comme ni ko procureur non mais ils sont pas à l'information judiciaire. ok yu bëri dañ leen parce que euh, ñaata lañu xawma ko est-ce que armes yi tiré ay arme police la wala ay arme privée gis nañu ay privé yu yore arme di tiré yooyu gis nañu ko les vidéos circulent. waaw mais euh, édifié ñu. non loolu ah. dafa très bien man loolu dafa laaj enquête dafa laaj enquête le nombre de morts bi ñuy wax maa ngi dégg ñi ne seize ñi ne mais loolu dafa laaj enquête. jusqu'à présent on donc, continue à moo tax dafa laaj enquête administrative loolu ministère de l'intérieur service FDS yi ñoo koy def mais pour la justice la justice a ouvert une information judiciaire contre X. ça veut dire que ñun du enquête administrative bi rek la ñuy def déedéet dañuy jël résultat wu enquête mais dañ koy élargir. def une information judiciaire l'information devient judiciaire justice moo koy def les OPJ suñ koy def ce sera su le contrôle du procureur de la République et le directeur de l'action de la police judiciaire su ñu demee nag ba am information yépp on enclenche des poursuites enquête administrative moom da ngay def rek def ay recommandations mais information judiciaire soo ko defee mun na aboutir ci ay poursuites ñi nga xam ne dañ leen identifier comme étant les responsables de quelque bord nag qu'il soit donc les enquêtes en cours. l'information soo xoolee euh, c'est le dernier paragraphe des des des des communiqué de communiqués des des procureurs. mais est-ce que le fait de rapatrier des Guinéens nekku leen di entraver euh, le, le le règlement communautaire. règlement communautaire bi c'est le principe de la libre circulation de la liberté d'établissement sous réserve de respecter les lois du pays c'est ça c'est sous réserve comme ay sénégalais yu dem fenn yi def ay kii rek mënuñ leen jël expulsionné na. waaw mais mën nañ leen traduire devant les cours et tribunaux s'ils son pas ñu ñu défendre s'ils sont pas coupables ñu laver leen s'ils sont coupables aussi ñu teg leen si yoon pourquoi les renvoyer à la frontière Il y en a qui sont devant Est-ce que mënul créer un en a qui Parce sont... qu'en Guinée, les gens aussi sont en train de s'organiser. Il y en a qui sont assignés devant les Mais les Sénégalais, ils ont la chance. ñoom fu ñu dem dañuy calme. Les Sénégalais photo de trouble dans les pays de la sous-région mosoo ko dégg mosoo ko dégg sénégalais yi dem nañu fii def lii def la lii même pays yu am guerre sax da ngay sénégalais ñoom duñu bokk ci guerre bi manifestation am ñoom duñ ci bokk mais fii tamit c'est un état respectons euh, la liberté de circulation consacrée par la CEDEAO mais dans la respect des lois et règlements du pays